Amadou Goudiaby lay wuyoo EG ñu ngi lay nuyu. ñu ngi noonu euh, Chérif yaakaar naa mën nañ dugg ci waxtaan bi moom secrétaire euh, général honoraire bu syndicat majoritaire des travailleurs de Dakar Dem Dikk. waaw nekk tamit secrétaire général de la centrale syndicale des organisations générales des travailleurs du Sénégal Mamadou xam na nu ko moom ci. Euh, Dakar dem dëkk laa tax muy dem àll te rek boobu ba léegi moom it ma ngay xool na kër ga di doxee moom Moussa Diop mi nga xamante ni kon jëlee nañ ko fa démb yàgg nañoo am i jàppante ba dem fii sax mbiram justice ban commentaire ngay def ci première li nga xamante ni dégg nga ko ginnaaw bi nga jàngee ne moom dàq nañ ko ci Dakar Dem Dikk waaw li ma jàng peut-être que je vais prendre le contre-pied de tout le monde mm-hmm. dama bëgg nit ñi aussi bu ñu focaliser wu ci troisième mandat moo dàq lu Moussa Diop lu ko dàq il a forcé son départ dafa forcé départ en faisant des déclarations fracassantes. Ah, donc Comment victimisez C'est une victimisation. <laughs> Et je vais vous dire pourquoi. waaw dinaa leen wax pourquoi. dafa dem ba gis ne il a échoué et l'État l'a constaté mu am beneen dossier boo xam ne dafa ñëw corsé coow li ci Dakar dem di mais dogguma la laata ngay développé. bu fekkee ni état dafa dafa constaté dafa échoué bu mu doon xaar pour dàq ko ba moom muy dem di victimiser. waaw moom laa lay wax xam nga euh, sànq euh, monsieur Cissé mu ngi doon wax ne ah, problème foncier man dafa yaakaar ne dafa piéger l' état parce que état bu ñëw jël suuf à Dakar dem di mais c' pour une longévité su son fauteuil état est tombé dans son propre piège kooku duma ci développé parce que li ma bëgg développé. mooy les résultat de Moussa Diop mm-hmm. li taxoon ñu dàq ko il y a le foncier qui a impacté le foncier lu tax coow loolu garaaw c'est parce que xëccoo ñëw na sax am APR ne nañu ñun versé nañu suñu chèque yaa ngi nii mais ñun liggéeykat suñu un milliard bi ci suñu dans les rapport de gestion ba nga xam ne moo ñu présenté mais moom génn na fi ñëw na fii ci soir d'info génn ay document acte notarié baa ngi nii. lu xew ci document boobu. acte notarié yi c'est d'accord mais le le le l'huissier a dit le notaire a dit. ak état financier yi aussi. brandi waaw l'état la brandi. mais maa ngi saluer au passage euh, Binta Diallo ku ku ku elle est très alerte. Ah, Binta moo ko doon interview. Binta ñoo ko doon interview ak keneen ki Aram Touré bi muy présenté xam nga document présenté ko nii présenté ko nii te kenn du ko lire. Binta dafa këf document bi mu ne ko fan la mu ne ko fan la milliard bi fan la mu ne ko je ne vois pas un milliard mais je vois je vois neuf cent mille de frais je parle sous le contrôle de votre collègue tout ça c'est de bluffs le document là nous nous avons des rapports waaw waaw d'accord man euh, mënuma développer mënuma wone ay këyit lire ay këyit tout le temps parce que je ne du ma dem te yoruma këyit man dama ragal a tuumaal nit. ndax kayit bari na lii bariwul sax. parce que vingt minutes la. <laughs> te ma liir benn bu nekk. mais dinaa leen liiral yeneen. Mhm. quelque quelque. def na fa mois dix jours. oui léegi lan nga moom moo tax ñu daax ko loolu bëgg nga leer. exactement dañ ko jox monsieur Cissé merci. dañ ko jox loo mën a xalaat ci alal matériel ak ci alal xaalis teg nañ ko ci loxoom ak bis. teg na ko ci loxoom pour mu développer Dakar Dem Dikk malgré ça en deux mille entre deux mille dix huit et deux mille deux mille neuf dafa perteloo kër gi dix milliards ci gestion am maanaam génneel kaar demal wuti xaalis ci sa euh, pas-pas nga indi dugal Dakar Dem Dikk malgré li ñu ko li ñu li ñu taataan yépp teg ko ci loxoom ñun travailleurs yi am na li ñu taataan dinaa leen ko liiral état ci sukkandiku ci ñun. ni ñu doon grève grève yu bëri moom dafa ñëw fekk alal dakaar dem dikk yëpp dajaloo ñu teg ko ci loxoom ne ko gérer en deux ans perteloo Dakar dem dikk neuf en deux mille dix neuf neuf en deux mille neuf neuf milliards. deux mille dix neuf ah deux mille dix neuf neuf milliards en deux mille en deux mille dix huit un milliard la perto mais nit mënul xalaat loolu. je vais vous dire pourquoi. est que loolu du bool yi état bi bi ko yoreel moom. non mooy bor bor moom fii la fekk ay bor. mais gis nga man justement dañ ko jox xaalis pour mu fay bor yi mais mu bañ a créer bor. mais bu amee année yoo xam ne ni dañu def ay investissement yu conséquent indi ko ay ay quatre cent véhicules yoo xam ne def nañ ko te teg ko ci ndoddu entreprise yu xëy na c'est normal que ci année yu ñu def investissement yu toll noonu résultat bi déficitaire mais da nga koy rattraper ci yeneen année yi nga xam ne nii defuloo investissement da ngay. mais mu ngi mais mu ngi fii depuis 2014. six ans il a kañ lay développé aujourd'hui il a reco dafa dafa reconstitué at dette bi maanaam bor bor bi état bi taxoon état génne xaalis daf ko reconstitué. mais kër gi am na yokkute surtout ci salarié wala déet. parce que li ñuy fàttali ko mooy. xam nga ñaari séquence a ngi fi. waaw Sotrac mu ngi fi. ku ne xam na la mu mujjee woon. Mhm. Euh, dépôt la woon. Mhm. Christian Salvi épisode bi ko président Wade di relancer Dakar Dem Dikk mu ngi fi. Mhm. du woon succès aussi. juróom-benni at yi est-ce que am na yokkute ci salarié yi ci ñuy utiliser Dakar Dem Dikk parce que aussi defe naa ni usager yi. Mhm. ñoom gis nañu amélioration. est-ce que loolu doy na pour yokk waa si waa si laay ñëw. Mhm. d'abord ñun suñu warugat lañu def pour dajale xaalis dajaleel ko xaalis wala dajaleel entreprise bi xaalis mhm. sous votre contrôle monsieur Diaby vous pouvez voir ça c'est un document. ba nga xam ne travailleurs yi ñoo négocier après trois jours de grève suñu grève yu bëri ya maa ko daan déclenché. Mhm. ça c' est Ngom il était ministre des transports. Transport. ça c' est moi ça c' est directeur général. lan la wax fii mhm. pérennité de l' entreprise wax nañu la soxla ci pérennité de l' entreprise. Mhm. institution sociale naa la wax. les termes d'un conseil interministériel on a exigé on a obligé dañu obligé ministre bi mu signé ne coow li bëri na Dakar Dem Dikk ñoom premier ministre ak yeneen ministres yi concerné la tutelle financière et la tutelle technique tutelle financière bi mooy le ministère des finances tutelle technique bi mooy le ministère des transports nañu def un conseil interministériel pour régler définitivement les problèmes de Dakar Dem Dikk on a obtenu plus de satisfaction que ça ñun la ñu wax le président a tenu un conseil document bi avec ce document stratégique bi ñuy élaborer ñun les les travailleurs pour notre participation comment développer l'entreprise parce qu'on est un syndicat de développement est-ce que attendez attendez attendez est-ce que gisuloo fi est-ce que gisuloo fi gisuloo fi contentieux yoo xam ne aussi mujjee na conseil présidentiel mujjee na ay bu enseignant mooy bu gën a gaaw. waaw waaw xaaral ma wax la dama la li ma la bëgg li ma la bëgg wax mooy. Mm-hmm. parce que li contrairement attendez contrairement aux autres. ñun dañoo mujjee woon le président dafa l'État dafa mujje respecter à travers le président tout ce qu'il a dit dans le conseil des ministres tout ce qu'il a arrêté à partir de notre protocole d'accord. mu ngi nii. mais mais le pré attendez attendez xaar ma xaar ma rek parce que sinon vous n'allez pas comprendre. xam nga il y a des promesses non tenues. Ah mais chez nous les promesses ont été tenues. loolu laa leen bëgg a wax. ñaata xaalis moo dugg ñaata bis moo dugg mais avant ça je vous dis tax ba xaalis boobu alal bu bëri bi bu dugg mooy les travailleurs le ak ak les tout le tout Dakar Dem Dikk je dis. y compris ci mérite quand même. Ah. il l'a rattrapé il a un mérite un grand mérite attendez je vais vous dire. voilà ce qu'il dit le le président. il est rappelé le conseil des ministres il a rappelé le président de la république à ce propos toute sa détermination à faire assurer la pérennité de l'entreprise de l'outil de travail qui passe d'abord par le règlement rapide du passif dû par l'État le chef de l'État a ensuite invité le du patrimoine foncier looloo tax ñu am mais loolu aussi il xaar ma ma pare xaar ma ma pare. xaar ma ma pare xam nga fu ma bëgg a ak yéen. il faut que je démontre que il a échoué. il n'a pas totalement échoué il y a des des des, des il a fait il a fait il a il quelque part. des acquis des acquis mais le fondement. il n'y a pas de croissance économique il a échoué foofu may leen ma rek. yokkute amul voilà yokkute amul. bon donc les possibilités d'un renforcement du patrimoine foncier donc le patrimoine foncier c'est à partir de là. Il a également chargé le chef du gouvernement, en rapport avec le ministre des Infrastructures des Transports, de lui soumettre un plan de réhabilitation du parc de bus de la société et envisagé la mise en place de centre de formation technique automobile à dimension sous-régionale pour améliorer la plateforme euh, de maintenance. a Euh, demander que ce soit incessamment engagé la procédure de régularisation foncière des dépôts de de de de de de Ouakam et de Dakar. renforcement du patrimoine foncier bi est-ce que mënuñ ci déggee ni dem na ba envisager par exemple ñu def un dépôt à Diamniadio par exemple plus grand et plus adapté que li nga xam moom lañ am fii Ouakam rek. waaw mais mais ñun ñun c'est pourquoi on avait produit ce document là bu ñu paree. Uh-huh. moom balaa muy ñëw Moussa euh, euh, Dame Diop. Mm-hmm. dans un rapport du conseil bi mu wax moom Dame Diop mu ne 409 bus bus Tata et Volvo sont donnés sous forme de subvention état bi subvention bi mu wax ñu jox ko Dakar bi mm-hmm. les dettes fiscales qui s'élèvent à 6 milliards sont versées dans le capital de la société état baal na ko Dakar bi mm-hmm. mu ne ko dugalal ma ko ci capital ba ba léegi amul le conseil d'administration est fautif le ministre des finances

loolu moo tax noo échanges entre l' les dettes de l' état et les dettes de Dakar Dem Dikk mu des 16 milliards. mu baal ñu 7 milliards. il a fait entrer à Dakar Dem Dikk 16,1 milliards issus des paiements de la dette sur les queues de compensation financière mooy li ñu ko daan fay du mat mu joxe 16 milliards. moom Moussa Diop mu jaay 3,8 milliards de ventes foncières. Mhm. dafa nax sénégalais dafa leen ne ñaari catu dépôt yi. laay jaay pour régler les problèmes de Dakar Dem

éthique bi déjà nga nekk au pouvoir parce que li jënd mm. patrimoine dëkk académique ñun ñoo ko jëkk attaqué ñun ñoo ko jëkk attaqué maa ko attaqué fii dans votre avec euh, euh, euh, jàkkaarloo jàkkaarloo maa ko attaqué fii mais l'éthique ne voudrait même pas mm. que un partie au pouvoir dirigé par le président Macky Sall président de l'APR mm. et l'État où le président de la République et président président dafa jaay boppam Euh, foofu léegi lu tax ngeen bëgg a teg responsable dem ci kaw Moussa Diop. mais parce que moom moo proposé la vente des terres nee na amatul xaalis dans les conseils d'administration encore non c'est pourquoi là le conseil d'administration est responsable là-bas. donc vraiment buy jaay buy non quand quand je vais dire une chose le conseil d'administration est l'État ont légalisé la dilapidation c'est-à-dire pasar pasar alal Dakar Dem Dikk conseil d'administration ak état ñoo ko kon kay Moussa Diop piégé wul euh, état parce que état. ñoo ko daganal je mais lu tax bu ñu dàq aussi ñu yam ci moom vraiment ah man lu tax bu ñu dàq ñu yam ci moom kese. justement loolu laa la wax dama ne moi man man du man maay dàq dàq wala dàqlo mais li ma mën a constater li ma bëgg a dindi mooy bu ñu ne troisième mandat kese la am na une part de responsabilité dans dans sa dans sa gestion kii boobu lu tax ma ne la indi la jiixi jaaxa parce que Euh, APR nee na versé na un milliard mais ñun dans les rapports de gestion rapport de gestion du man maa ko bind du benn conseil d'habitation moo ko bind Moussa Diop dans son bilan ci bilanam moo ne maa def lii maa def lii maa def lii. il a il a modernisé quand même participé na ci moderne. parce que ay Sénégal dem dikk ci moom. foofu laay ñëw Afrique dem dikk AIBD ah, foofu laay ñëw dans le développement. bi nga xam ne réussir climat social bi. xam nga woon dégg dégg yow temps yi nga fa nekk di yëngu-yëngal temps yi Christian Sall bi moom bi mu ñëwee dégguñ fa grève yu bari. xam nga lu tax dégguñu grève ah. mhm. nit aussi boo poser un problème revendication ñu jox la lépp sur un plateau lii may wax nii lii may wax nii. en dehors des 16 milliards bi état jox il a respecté le foncier il a donné un un un un bail à Dakar Dem Dikk mu may Moussa Diop mu ñoom état parce que l' état est complice ñu jaay 3 milliards 3 virgule 8 milliards de foncier ñun nos recettes en li ñu liggéey travailleurs yi 17 milliards 799 recette euh, milliards recette annuelle Euh, euh, quinze milliards au total en deux ans quarante et milliards ci ñun li ñu liggéey ak vingt milliards li état dugal ci Dakar bi malgré tout ça mhm. am na quatre cent quatre-vingt-sept bus qui sont garés non léegi ana ana ana de ana faute de gestion yi parce que boo defee ratio bi entre parce que yéen fenn rek ngeen di jëlee xaalis ah. recette waaw moo ci ëpp léegi li recettes yi dugal bu fekkee nii dafa yées li nga xam ne nii mooy dépense yi Dakar Dem Dikk waaw ci wàllu exploitation ak yeneen ak yeneen je vais vous dire mhm. loolu moo tax état jox ko compensation financière an an an at bu nekk da koy dugalal cinq milliards mais calcul bu simple gis ni ba léegi matul non matul voilà aujourd'hui par exemple pour cette année on est presque à sept milliards état dans la loi de finance damay ñaan état dugal les 7 milliards parce que le ministre des finances a signé un décret pour que saa yu xaalis bu ñu xaymaa li état war a dugal ci Dakar bi Dikk mu dugal yépp mu bañ a tronqué loolu moo taxoon ñu dajale bor ya li mu ñu yoree ba mu toll 16 milliards ñu versé ko euh, euh, à Moussa Diop pour que mu gérer ñun bañ ñu ne il a fait dans le cadre du développement ñaar développement entreprise ñaari pàcc la premier pàcc mooy nga rechercher des ressources additionnelles de l'entreprise réussir na ko avec l'AIBD bien sûr bien que bien que fii la fekk projet bi moo ko exécuté fekk def na interurbain fii la fekk projet bi moo ko exécuté moom moo initié Afrique Dem Dikk parce que Afrique Dem Dikk bokkul woon ci ñun lañ daan xalaat bu jëkk moom ak président ñoo ko xalaat voilà les effets positifs ba pare au plan social il a réussi à rehausser les salaires mmh. il a réussi à aller au sol de. moo tax kenn déggu fa coow waaye fii non non coow lii mooy yow li nga revendiqué bu ñu la ko joxee yëpp ñu jox la. am na ñeneen ñun est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au moment où je vous parle il y mille cent soixante deux bus à Dakar Dem bi et je vais le détailler parce que damaa bañ ñu ne bu jaabi day wax rek. ñaata ñoo ci daw moins de cent moins de deux mais loolu est-ce que c'est pas lié à la structuration de entreprise ni mu demee parce que aussi amoo leen yéen ay fu ngeen di réparer. Oh, ah am ngeen di atelier mais amoo leen li ci war yëpp pour mën a remettre en. pièces yi waaw li ci war yëpp li ci war yëpp kan moo a. dépôt bi yëpp ay carcasses rek dafa nekk waay ku ci li ci li ci war yëpp mooy pièces détachées kan moo ko war a jënd. entreprise bi. entreprise bi am ay recette ñu dolli ko vingt milliards état dolli ko vingt milliards en deux ans mun loo profiter ba jënd ay pièces détachées ba moderniser les outils outils yi nga xam ne ñoom jumtukaayu euh, mécaniciens yi nga nga relever ko xalaatuloo pièces détachées mais déficit yi bi lan moo ko lan moo ko andi parce que lii yi ñu fi ubbi. ci mel ni ay ay AIBD beneen six mille lay fay mën nañu wax ni foofu yëf yi dafay yokk euh, transport interurbain bi ak euh, ñiy dem ci Afrique tout sax dañoo jàpp ni loolu développement la yëf yi dafa yokk. dafay mais au contraire dañuy dégg ne entreprise bi. waaw waaw déglu urbain bi. mais mais mais chiffre la mais chiffre la mais chiffre la. Mm. ce sont pas du samay chiffres. Mm. chiffre Moussa Diop la. Oui. Je les ai tirés dans le bilan de Moussa Diop moo ne maa def lii. et puis li ngay wax nii c'est très important xam nga nit mën na bàkkoo ne maa def ay BD maa def lii maa def lii waaye koom-koom bi lan nga indil entreprise bi chaque année il perd plus de un milliard à ay BD. parce que lii cœur de métier wu entreprise bi aussi. muy voilà urbain bi. waaw biir Dakar bi. waaw foofu déficit bi foo mën na nañ def moo koy gën a creuser parce que aussi xam nga transport pour mu dox. dem à l'heure ñëw à l'heure la mhm. trajet bi dem def ko jeex ci mais trajet boo waroon def en une heure nga def ko deux heures ou trois heures mhm. perte nga ay recettes waaw ah. yooyu yëpp dañ ciy dañ ciy tenir en compte est-ce que service public des transports bi ah. mën nañu continuer dans l'avenir bu ñu soree lu weesu Moussa Diop dans l'avenir est-ce que dañuy xalaat ni rek lu war a produire ay recettes la pour entreprise bi wala li gën a urgent mooy fexe ba service public des transports mate pour usagers yi waaw moom laa la wax dama ne mhm. un transport partout dans le monde, c'est déficitaire. Oui. C'est déficitaire. Nous, on le reconnaît. Mais l'État a, a, signé une convention de concession avec Dakar Demdi. N'est-ce pas c'est pas, tout, pas tout à fait vrai quand même de dire que c'est déficit. C'est déficitaire pour le service public. Mais quand c'est des entreprises privées, nga xam ne ñoom peut-être seen yoon nekkul ci as non attendez non ce que je veux dire ce que je veux dire bu dee état moo ko yor nga xam ne dafa war a assurer le service public mhm. quelle que soit rentabilité bi mu war ko def mais bu dee entreprise privée la man bu ligne bi déficitaire man ne dindi naa fa sama bus yóbbu ko feneen fu foo xam ne nii mu moo rentable maintenant service public bi effectivement ko état yore léegi nag le est déficitaire la c'est parce que le ticket le coût d'exploitation n'est pas encaissé maanaam ticket bi li mu waroon a jàpp tey jii aftu ma jox leen exemple exemple aftu bu jógee Rufisque ñëw bi biir dakaar cinq cent francs minimum Dakar dem dig deux cent cinquante francs mhm. ne ko sa deux cent boobu man maa la ko complété ci compensation financière deux cent cinquante ma teg ko ci pour nga bañ a nga bañ a perte est-ce que état moom laa la moom laa wax nii moom la versé yëpp mënuñ leen maa gën a xam li mu nekk Dakar Dem Dikk dañ ko versé lépp li ñu ko yoree aujourd'hui l'état yorelul dara Dakar Dem Dikk fu mu ne nii ah. les queues de deux mille te ma ça ne fera pas plus de deux milliards mhm. mais côté euh, social bi tam man bëggoon naa jox parce que yaa ngi koy wax sànq. moom ah. taxaw na fii par exemple ne boo jëlee kaw IPRES par exemple. Ah. nee na par exemple 5 milliards yoo xamante ni la bu mu fa fay lu mel 900 millions ci li nga xamante a faju loolu pense que ay ay jëf yu baax. waaw ba ci ubbi centre médico social Moussa Diop. waaw loolu jëf jëfu travail bi. moom xeex na. centre médico social centre médico social daf ko xeex ba tëdd ci suuf. parce que bu yaay yi moo fa ne bu yaay bi moo initié le projet. jox ko IPM parce que yow tam nee na na nga ko daa yore doxut. Ah, non non l'a fermé.

ak yooyu pour non fonctionnement. de waaw moom dafa war a dem France. waaw nga ne du dem. nga ne moom dafa war a tukki. waaw non mais tukki xam nga ñu dàq la tey. nga ne may leen ma ma dem France. ngay ñaan conseil d'administration may leen ma dem France le 9 ma ñëw ñu door a def. passation xëy na dafa xam nga tukki bettul kenn. waaw muy dem France waajoon. ma ne wóorul wóorul. ah lan nga ko de l' affaire du puissant DG de l'IPRES Diouf. da nga yaakaar day day yóbbu ay pleurs. en tout cas xamuma wóorul. waaw ah, dañ ne wóorul. wóorul wóorul na xaar ba def ko audit. Ah. def ko audit. mu mu mu doon teel waaw Chérif euh, ngi waaj a jot. léegi dañuy bàyyi maître wax ci DG bu bees bi. bun euh, xattaab ci DG bu bees waaw moom lan ngeen di xaar ci moom ak naka ngeen yaakaare ni la ah. mën a. Euh, suñu yéene mooy. seen lañu la ñu defoon ak Moussa Diop la ñu def xam nga. dañu bëri woon dañuy fàttali bu Goudia bi da ngaa retraité moo moo tax. président honoraire président honoraire. je suis président honoraire et je suis le chargé des contentieux au niveau de. de de de du syndicat majoritaire. toujours actif. waaw ah, <laughs> yow ba waaye ban syndicaliste nga gis mu retraité. <laughs> waaye ñoom ah, jiwee ngi fi ñoom ñu ma jiitu foofu. ñoom ma dem ba seetaan ah. ngi merci beaucoup monsieur Guèye. ce ñu xaar mooy on a trouvé. ñu jeter des bases de développement de l'entreprise la ñuy reproché Moussa Diop mooy les ressources additionnelles maanaam wut yeneen koom-koom entreprise bi pour mu développer mm-hmm. teg na les gens mais sa gestion au fond moom moo échoué ba partout il a fait des résultats négatifs de un milliard AIBD plus de un milliard à à kii là globalement plus de dix milliards entre deux mille et loolu c'est un échec. léegi li may xaar ci directeur bu bees bi. Mhm. mooy li defoon ci Moussa Diop. dañ ko ne travailleurs yaa ngi nii kenn ku nekk dans ta spécificité et ta technicité man laa jàppale ñun kër gi lañu xam xamuñu directeur général ñun xamuñu directeur général. dañuy ñëw léegi nag loolu moo tax ñu ne ko collaborer la ñu jox la suñu xalaat document bi jot na ko ñu def mu ne non non non vous voulez une man bëgguma une cogestion jusqu'au sommet de la direction générale mu éliminer la signature du du mais on parle du du euh, de Boun Khatar waaw parce que en fait bi dafa jot. waaw d'accord il faut on est obligé d'aller faire autre chose dafa doon signer chèque. Mm-hmm. balaa Moussa balaa le DG di signer. xëy na ñëw rek dindi ko mu ne. jërëjëf kon pourtant neutralisé na la moom. waaw beneen bi il faut ñu dem beneen mooy bon pour le directeur le nouveau directeur. Mm-hmm. xamuñu ko bu ñëwee man de benn conseil laa koy jox. Mm-hmm. Dakar Dem Dikk bëri coow ñàkk bëri coow ñoom li ñu bëgg mooy seen société na naat la pérennité de l'entreprise parce que moom lañu yaakaar léegi ñun li ñu bëgg ñu dem mooy pour sa signature de la signature des documents de passation de service mhm. man li ma koy conseillé mhm. il n'a qu'à signer sous réserve très bien je suis obligé de vous couper parce que dañu war a dem allo présidence monsieur Goudiaby <laughs>